leen ak jàmm mbokk internet bpactu point comme ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen uh, jaajafal tey vendredi 3 décembre 2021 ñu fas yéene ñëwaat ak yéen ci xibaar revue de presse yi bu ko defee dañ koy daal di ubbee at xët yu nekk ci journalu populaire mu daal di uh, fësal ci xëtam gu njëkk uh, li nga xamante ni moom moo di grève des transporteurs gis nañu ne 48 heures yi ñu jógee ñii nii di dawalkatu oto yi nekk ci Sénégal dañoo amal benn grève ngir ñaxtu li nga xamante ni moom moo di seen nakar ak seen tiis ci kaw tali bi 24 heures la ñu waxoon daal di koy yokku 48 heures ba ñu gisee ni nag seen grève bi amagul gain de cause euh, ci luñ ko daal di déclaré rek illimité maanaam daal amagul dat exact boo xamante ni ci la ñuy euh, fas yéene arrêté li nga xamante ni moom moo di grève yi ndax boobaak léegi ñoo ngi ñaxtu lañ dala ñaxtu bari na euh, ba ca bokk mën nañ ci cité police yi nekk ci tari bi tey faral di leen laaj xaalis saa su nekk nee nañu lu ñu daw rek bu ñu jàddee police yi daal di leen koy jël ay mille francs ki 2000 ba ca topp tamit bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo nag seen place ci tali bi lu ci mel ni cag-cag yi ak oto yi dem Dakar Thiès di làqatu ci rukk yi ak yeneen ak yeneen yu ni mel Mansour Faye daal dina ci yëkkati ay kàddoom nee nag nee na nag moom moom moo di seen interlocuteur te pare na pour tendre leen la main ngir ñu mën a jot ci li nga xamante ni moom la ñuy ñaxtu waaye ñoom daal dafa mel ni tànk teguñu seen euh, loxo lu seddu xol rek fas ñu yéene arrêté benn yoon li nga xamante ni euh, moom moo di seen euh, grève bi waaye yow ànd yeewi askan bi. amal nañu benn conférence de presse démb nag daal di ciy soulever ay poñ yoo xamante ni mën nañ cee tudd bu ci mel ni. suñu njiitum réew ak Jibril Ngom mi nekkoon seen mandataire ci diwaanu Matam te mu leen daal di uh, trahir dem uh, fekk ji président Macky Sall ca diwaanu pale ba pare nañu nag lépp ngir mën koo traduire en justice ndax nee nañu li haute trahison lañ koy woowee. Sonko nee na dañuy daal di uh, fas yéene saisir li nga xamante ni moom moo di ensemble bi ngir que Macky mën a wuyu ci haute cour de justice ngir trahison bi nga xamante ni def na ko seen ginnaaw. wàllum sécurité ci réewum Sénégal nag nekk na loo xamante ni yëmoon na askan bi loolu ku ci nekk boo tëddee doo nalaw boo lekkee doo ko jàllale ndax euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi euh, nekk di troubler askan bi police nag daal dina affiché li nga xamante ni moom moo di ay euh, chiffre am yoo xamante ni mën nañ koo encouragé lool criminalité bi waa daal dina euh, baissé ci euh, li nga xamante ni moom moo di premier semestre bu 2021 bi de 52 virgule 98 pour cent par rapport ak de dernier semestre bu année 2020 bi boobu nag gisoon nañ ni taux yéegoon na lool ba naroon na àgg ba 99 pour cent ci li nga xamante ni moom moo di wàllum crime interpellé nañu lu toll ci vingt et un cent cinquante huit personnes ci biir nombre boobee nag lu toll ci deux cent soixante et un nationalité étrangère lañu waaye seize mille deux cent cinquante cinq déferment am nañ ko ci. noonu la ñuy jaaree daal di dugg ci journalu Libération mu ñëw ak ñun nag ci coow bi nga xamante ni moom moo nekk ci poste finance benn coow bu rëy la boo xamante ni mi ngi tourné autour des millions et des millions DG bi nga xamante ni nag faloon nañ ko la vingt cinq novembre passé daal di koy félicité. ci liggéey bu baax bi mu def ci biir administration bi daal di nañ koy euh, viré le premier décembre ki ko viré nag du kenn ku dul Abdoulaye bi Baldé après ba mu ginnaaw ba mu déposé benn plainte ngir leeral xaalis boobee di dugg ak génn ci loxol entrepreneur yoo xamante ni amul lenn loo xamante ni nekk na en règle DG bi nag di wuyoo ci turu Saliou Fédior ginnaaw ba mu defee loolu la ko Abdoulaye bi euh, Baldé daal di koy euh, renvoyé. moom nag nee na pour mu daal di génn li nga xamante ni moom moo di bureau faaw ñu ko faloon toog réunion ko ba noppi ni ko viré nañ la mu soog a génn ba mu defee riposte nag dem toogaat ci bureau lañ yónni ay ah, ñu ngi koy waxee rek ay nervi ñu daal di koy fekk ci bureau ngir génne ko de de de de force travailleur yu fa teewoon nag daal dinañuy résister ba xeex bu métti daal di am ca diwaanu poste finance jamono jii ñuy waxee génn poste finance yëngu na te ko yëngal du lenn lu dul mbirum scandale xaalis. noonu la ñuy jaaree daal di dugg ci journal l'observateur l'observateur ba tey ci xëtam gu njëkk mu daal di ñëwaat ñun lekk ci conférence de presse bi waa ànd yeewee askan bi amal ngir traduire en justice euh, kii nii di Djibril Ngom ak suñu njiitum réew pour haute trahison gis nañ ni daal ni lii nii mënuñu ko bàyyi mu sedd ndax dafa nekk loo xamante ne justice am na ci wàll te war na cee dox ay tànk jéegoom Jibril ngi ñëw gom nag moom nee na dawul yotaa amul lenn loo xamante ni mi ngi koy daw bu fekkee dañ koy traduire en justice nañ ñëw Sonko nee na dinañu démarrer li nga xamante ni moom moo di euh, démarche yi ca tribunal bu Louga buñ fa doxantoo euh, benn euh, tonton wala suñu benn membre tollu ci 75 ans lañ fa doon jugé ngir vol de chevre maanaam daal ñaari bëy la daal di sàcc ñu daal di koy jugé ci tribunal bu Louga waaye fa même ba ñu teewee ci lieu yi seen réaction nag moo njëkk a juge bi ndax dale famille bi dafa demander juge bi ngir ñu daal koy injecté euh, benn produit boo xamante ni moo koy euh, paralysé loo kii qui signifie que ni euh, pa bi am na ci benn anam boo xamante ni sonal na leen si lool ba tey ci grève des transporteurs le journal L'Observateur daal di yaatalaat mu ñëwaat nag ba tey ci cadre unitaire bi nga xamante ni boycotté nañu seen ay négociations daal di passé seen mot d'ordre wol nañu 48 heures de grève te illimité la ñu daal di fas yéene jëm bu fekkante ni dégguñu wala joxuñu leen lu leen neex Mansour Faye nag moom la mu yëkkati ci journal l'observateur mooy que ni nguur gi dina jël disposition yëpp ngir faciliter dem beeg dikk bi euh, ci askan bi waaye tamit euh, ci li nga xamante ni moom moo di seen bien. li nga xamante ni nag moom moo di grève bi dafa mel ni daal dinay takkarnaase loolu waaye ñi ciy bénéficier du ñenn ñu dul charretier yi ñoo ngi dem ci ara yi fi nga xamante ni pour fële bus yi clando yi ak taxi yi daan taxaw foofu noonu lañu daal di dem pointe ji di yóbbu nit ñi nànk ñuy liggéey ba ci ñi nga xamante ni ñooy liggéey seen bureau sax jamono ji bu ñu xëyee dañuy rang charrette ngir ñu mën a am seen dem ak seen dikk ca na mu waree. ci biir journal l'observateur la mu fësal ci wàllum sport bokk na ci cascade de blessures yi am euh, ci lion du Sénégal yi Koulibaly tamit nag bokk na ci ginnaaw ba mu amee euh, blessure aux jambes bu ñu daal di koy awat pour un mois. tamit daal dinañ koy forfait pour un mois mu nekk mbir moo xamante ne rek dina chambouler lool euh, li nga xamante ni moo waroon a nekk euh, plan bu euh, kii nii di Aliou Cissé ndax umpalewu leen ni ñoo ngi jëm ci li nga xamante ni moom moo di kan bi te cette fois ci ci bari dañoo taxoon seen dënd fas yéene gagné li nga xamante ni moom moo di coupe bi à tout prix jamono ji nag Aliou Cissé jaaxle na lool ci ay titulaire am yu bari yoo xamante ni ci banc yi la ñuy daal di mujjee mbirum mi li nga xamante ni nag moom moo di wàllum sport lañ koy daal di leen Euh, ci journalu record mu daal di ñëwaat ak ñun euh, ba tey ci blessure bi nga xamante ne euh, Koulibaly am na ko ci jambe bi ñu daal di koy out pour un mois quatrième titulaire de Cissé boo xamante ni mi ngi ci banc yi Krépin forfait nañ ko bu Bouna ak Ismaïla Sarr incertain jamono ji daal moom Aliou Cissé bu tëddee di nelaw ndax yaakaar yaakaaraat wala mën a xoolaat naka lay def ba defaraat li nga xamante ni moom moo di sélection ngir jëmale ko ci kan bi ba mën cee mucc ak ndam saccage chaise euh, yi nga xamante ni moo nekk ci diwaanu arène nationale boobaak léegi nag CNG par jugul benn yoon di dut baaraamu tuuma amateur ya fay def wàllum violence donte sax euh, ñoom des fois mbëri duñ ko yëkk waaye décision bi nga xamante ni CNG jël na ko du lenn lu dul euh, jël li nga xamante ni moom moo di seen reliquat ngir que saa fa daram amee rek ba ay yàqute am fa ñu daal di jël seen reliquat defaree ko li nga xamante ni moom moo di yàqute yooyee amet ko ne nag bu écrit kay baax. Euh, nee na mesure yooyu nekkul loo xamante ni nopp mën na koo dégg ndax mbër moom bu duggee ci arène lenn doo nga ko ñor naka lay def ba songoo adversaire am di ciy am ndam wala sax mu nekk foofee du sotteeku ay gàllaajam ba mën a pare en temps mën a def ay toucham ak yeneen ak yeneen yu nu mel donc bu ñu bëggee jël ci ndoddam euh, teg ci loo xamante ni euh, jaaduwul duñ ko mën a nangoon doon ndax bu ñu seetloo bu baax des fois mu am ñoo xamante ni sax euh, duñu ñu supporteeru mbër mi ne dañuy dem ci place supporteeru mbër yi euh, rien que pour def fa ay ñaawteef ngir ñu mën a téye seen reliquat mbër loolu yëpp mën naa nekk ci biir donc CNG na xoolaat bu baax a baax li nga xamante ni euh, moom moo di ay décision ba tey bu ñu duggee ci journal record ah, tey jii ba ñuy bind journal bi peut-être que fekkul woon kii nii di lamina jàkk daal di dëddu àdduna moom mi nekkoon président ci athlétisme bi Euh, génn na àdduna tey jii nii ci euh, fajar gi tey ci àjjuma bi nag à l'âge de 88 ans ginnaaw ba mu dellu see Sénégal yàggul dara ci ay wéeru néew lay toll euh, di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fa mu jege tey jaale ay bokkam bu baax a baax a baax ñu ne ko ràpp ak journal suñu làmb suñu làmb nag moom mi ngi fësal lekk choc bi war a am le 5 décembre incha allah. Euh, war a dox ci diggante Siteu ak euh, Papa saw Siteu ak Papa saw nag euh, combat la boo xamante ni ñu bari ci amateur yi moom la ñuy naane naane attaaya jamono ji daw tax na Zallo mi ngi koy décortiquer nee na Papa saw moom mooy dem favori ndax moom moo gën a yàgg ci làmb ndax moom moo gën a yàgg ci arène bi ndax moom moo njëkk a takk ngemb ak kii nii di Siteu waaye nag bu xeex amee dina ar dina arrangé Siteu ci moment u euh, Papa Sow daf ko xeeb lool Papa warul sous-estimer ki nii di Siteu ndax lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw am na ay ngelaw yu ci làmb Zos ginnaaw bañ koy poussé di ko laajte ba xam da ngay bàyyi làmb am déet ndax euh, défaite bu mag bi nga am ci kanam kii nii di Aliou Seye ba sa bët bi daal di ciy toj moom nag li mu wax nee na. pourquoi ana lan moo war a tax mu daal di arrêté làmb ndax blessure bi nga xamante ni moom leer na ko ni Aliou Seye 2 dafa amoon lu mu yor ci loxo bi looloo ko gaañ donc mbir maa nga noonee foofu la ñuy we jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah ci yeneen i xibaar jërë ngeen jëf.